vous avez un mouvement politique est-ce na récépissé. Euh, bien sûr. s'unir euh, pour demain euh, gis nañ ñu ñoo ñoo xam ne candidat yoo xam ne par exemple ku meloon ni Malick ku ma joxe mm. exemple am Thierno Alassane Sall Abdou mbay ñoom ñoo leen gën a ëpp ancrage ëpp leen taxawaay ñoom ils ont eu du mal à avoir les parrainages en Euh, li ñuy laaj ci wàllu parrainage deux mille par région. Mm-hmm. Euh, zéro virgule huit pour cent euh, du du du fichier. Mm-hmm. électoral. Mm-hmm. ban gàngoor nga àndal ci ñan lay sukkandiku tey. pour mën a am parrainage est-ce que di jàll kabu parrainage. si waaw. Hmm. waaw bu baax sax man matal naa sama parrainage. Ah, eh, man li ma lépp lu ma wax yàlla laa koy seede. matal nga pare naa lépp lu ma lépp 312 000. fi may waxee ak yow ak ñoom ñi ah. may see sama. xam nga xale yi ñëwul di la indi di la man man man am naa benn chance. Ah. am naa benn chance man euh, ak Sénégalais yi xaw nañu yàgg du ma novice si ñoom quoi du ma ko bees. am nga 312 000 man fi may wax ak yow nii am naa 312 000 parrainage man. kon donc pare nga sa collègue. non non xam nga après nag nit ñi ku nekk gars yi ñu ngi ñëw nag ñu ngi ñëw mais dama ne man ma mu ne damaa bëgg li ma lay wax tey nga takk ko téere mm. li ma gëm laa lay wax li ma def laa lay wax lu ma def du ma ko wax du ma tudd turu jàmbur du ma tooñ kenn dama ne man daa man à ce jour am naa trois cent douze mille parrainage du cette raison lañ ma laaj mm-hmm. mais mu ne su ma demee man pour juste pour te dire fi ma man dama ne la fii laa juddoo Pikine màggee yëmbal Médina Gueule Tapée euh, Blaise Diagne nangam Castor et cetera may mun a man su ma demee ak li ma def Sénégal yëpp mun ma am soixante mille parrain yu fiable dinaa jël sama xaalis di investir pour pour pour dem pour avancer. waa léegi.